bismillahi irrahmani irrahim an abi amr jëlee nañ ci saxaabi bu ñuy dàkkantale abu amr wa qiila abi amrata am nañu koy dàkkantale abu amrata it sufyaan ibni abdullah muy suñu sang sufyaan doomi abdullah loolay turam radiyallahu anhu yal na ko yàlla gërëm qaala mu ne qultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bés dama wax yonantu alayhi salaatu wasalaam yow ki yàlla hebal qul lii fi lislaami qul lii wax ma fi lislaami ci lislaam qawlan wax joo xam ne laa asalu anhu ahadan gayrak yow kot laa ko mën a laaj duma ma ko laaj ku dut yow qaala mu ne ma qul neel amantu billahi gëm naa yàlla thumma istaqim gannaaw ga nag nga jub qul waxal amantu billahi gëm naa yàlla thumma istaqim te nga jub rawahu muslim hadis ji muslim solo na ko mbokk yi ñaari baat yu gàtt la ko yonantu sallallahu alayhi wa wax mu résumé mbaaxi àdduna ak mbaaxi àlaxira gannaaw bu mu laajee da ko yonantu sallallahu alayhi wa sallam jàngal ci lislaam loo xam ne yonantu kott moo ko ko mën a jàngal yonentu mi yàlla joxoon jawaamiul kalimi benn baat ak ñaar lay wax maani yëpp dugg ci ni ñu ko jànge mooy markazul fuhumi wal maani ñaari baat yi mu ko wax gëm naa yàlla ngëm fekk xamut yàlla du xool jëfi jaam bi wa huwa muminun man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa muminun mooy fondement bi illa alladina amanu wa amilu salihaati gannaaw ga nag jëf ju baax jëf yu baax yëpp nag ñu ngi tege ci njub mooy nanga ko defee ni ko yàlla ko yonantam jàngale bàyyi it lépp loo xam ne contraire bala kon istiqaamatu mooy ne ci li nga wara ne bàyyi li nga war ba moo gën a jafe nag ndax doomu da danañ ko defal ay karaama yu bari te fekk sax istiqaamatu matagut ni ko ibnu atailahi waxe rubbama rubbama euh, ruziqa karama man lam takmul lahu l istiqaama moo tax kooku wali duñ ko jàppe waaja nee nañu boo gisee waaye muy dox ci ndox mi te lawut mbaa muy naaw ci jaww ji te daanuwut mbaa mu dugg ci safara te lakkut waaye istiqaamatom shariatom rafetut xamal ne seytaane la Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dana wax ne istiqaama gën junney karaama wala sax moom rekk mooy karaama moo tax ñi ko yàlla jox yàlla nee na duñ ragal duñ tiit duñ ko def ci àdduna duñ ko def ci àlaxira inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu fala xawfun alayhim wala hum yaxzanun wax na ci fussilat ne ñooñu am listiqaamatu bu ñuy faatu malaaka ye leen di gàttandu inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika allaa taxaafu bu leen tiit bu leen jàq bu leen ragal wala taxsanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun di leen bégalee aljanna naxnu awliyaukum fi lxayaati dunia wa fi laxira boo amee listiqaama bu la ñëpp bàyyi it xamal ne am mbooloo mu ëpp ñi la bàyyi téeméeri junne yoon ñu ngi ànd yow boo ko yëgeeg boo ko yëgul muy malaaka yi yàlla yi di ay soppeem nahnu awliyaukum fi lxayaati dunia ba axira wa fi laxirati noonu la ñuy ànd ba biir aljanna di la wan yu neex yeeg yu baax yi walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun yal nañu yàlla may listiqaamatu yal nañu yàlla may listiqaamatu yàlla may listiqaamatu yal wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam amin